docteur Mor Gassama maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi maa nga nekk euh, économiste enseignant chercheur consultant sur les questions de développement laaj bu njëkk ma lay laaj institution financière yi di banque mondiale ak fonds monétaire international lan mooy seen importance lan la ñu représenter exactement. Euh, euh, ñu ngi leen créé en cent quarante quatre euh, ci benn conférence euh, bu amoon Portugis euh, aux États-Unis voilà boo xoolee banque mondiale li dox jot mooy xeexu ndóol ñu def ba dool bi gën a dellu ginnaaw wàll dugg ci àddina bi waaw FMI moom li mu bëgg mooy ci gouvernance financière maanaam mbirum koom-koom ñu joxe réew joxe ndóol jokkalante voilà li ñu def ba gën ko améliorer pour que vraiment système bi bi donc bañ a am ay ay jafe Euh, kon daal ñoom xeex ndool moo leen tax a jóg euh, su ma la déggee docteur. Euh, moom nañ jëriñ si lépp loolu. Mhm. parce que banque mondiale loolu mooy kilo doom sax œuvre pour un monde sans pauvreté maanaam nan ngay def nga xam ne nekk ci àdduna boo xamante ni loolu dafa am. day action bii mën tamit ko xeex ndóol la voilà ndax après am na ay résultats wu baax beneen tabax boo xam ne ci dugaat ci kanam. voilà euh, donc euh, est-ce que euh, Banque mondiale ak FMI euh, si yenn réew la ñuy faral di intervenir ci àdduna bi ci réew yëpp wala réew yu ndóol yi wala réew yu am xaalis yi. bu dente ne Banque mondiale day nekk dem réew boo xamante ni néew mu naat naat la nga daan fa intervenir sa bàyyi fa ré ré réew yu population yi ko jël ay daanaka quatre-vingts pour cent pour cent yi. Euh, donc day yëf ay jafe moo tax souvent yaa ngi dégg institution yooyu di banque mondiale ak fonds monétaire international euh, ñoom pratiquement ci yenn réew la ñuy faral di intervenir. waa euh, waaw aussi dafay dafay dafay conforme ak li ñu li ñu ko déclaré parce que bu dee mel ni banque mondiale xam ne leen fexe jóg moom mooy œuvre pour un monde sans pauvreté maanaam di yëngal si àdduna bi pour que loolu fi ñàkk jóge fi euh, kooku réew mu naataange naan dafa intervenir te donc moom ñoom vraiment waaw ñu gis ni tamit dañuy impliqué wu lu bare bari ci euh, koom-koomu réew yi comme réew mu demee ni kii Sénégal euh, loolu lan moo koy euh, expliquer implication bi orientation bi surtout. waaw banque mondiale moom daanaka ak FMI ñoom ñoom dañu am seen principe yu fonctionnaire pour ñëw ci tamit da ngay conforme seen i principe voilà donc ñoom dañu am seen gis-gis ci réew nan la war a yëngatu rawatina koom-koom nan la services nga xamante bi dañ koy faral di jox ci ay ay ay instruction mooy ne dépenses nga xamante ni koy orienté ci ay social dañ koy faral di wàññi loolu nekk yi et cetera euh, te yooyu moom bu dee na ñeen la wax boo ko dul nangu pour nga liggéey moom du jafe du yomb moo tax réew yu bëri comme dañuy parce que bénéfice de seen appui dañuy obligé dafay ñamoon côté boobu voilà ci finance publique yi voilà dem assainir aussi imposer est-ce que tamit euh, souvent maanaam euh, bor bi naka lay demee euh, yan condition ngay remplir pour ñu mën la lebal te tamit buñ la lebalee fay bi naka lay demee. Mhm. waaw parce que ñoom souvent ay contraintes lay tegal ci ci ngay gérer say nit ki koy orienté ak dépense yi nga xam ne yaa ngi koy engagé yenn saa yi sax ñu dem ba puusal ci war privatiser yenn secteurs yi nga xamante bi euh, même bu dee sax ay rapport bu bëri te état bi ci dugal xaalis souvent daan naan ca def privatiser ko benn yoon. ak ci yi ci saa yi conditions yi rek mën na laa lebal mën aussi tombe très classique voilà léegi nag bu dente ne euh, comment dirais-je là euh, jàmm def ko ci digg bi nga am ay jafe-jafe ci boobaa aussi souvent réew mi def mën na ko waxtaanaat négocier waat ko ba nga xamante ni dañ koy réchauffer état bi def maanaam mm. ñu xoolaat ci ma repoussé waat bi pour nga waaw Euh, démb ñu gis ni euh, sorte bi nga xam ne Fonds monétaire international def na ko ak génn wax ni euh, Sénégal sax peut-être dindi na subvention bi ñu ko waxoon lu ne mel moo waral sax augmentation carburant bi ak énergie bi yow loolu ban jàngat nga ci def FMI par rapport ak subvention bi mu waxoon état bi na ko teggi. waaw yow daanaka jàpp nañu sax décaissement bu mujj bi. bu cent euh, trente trois milliards je pense bokk na ci def gën a yombal jax jàpp na ne Sénégal de élève bu baax la élève bu baax la élève bu baax la ndax li li ko maître wax da koy da koy da koy nangu da koy appliquer boo ko defee rek daanaka ci boote yomb ah, waaw donc bokk na ci daal voilà ndax te recommandation yi waxoon bokkoon na ci ñu ne la na nga wàññi subvention na nga wàññi subvention bi ci énergie bi waaye subvention bi nag mais sur loolu nga yokk njëg ci waaw yokk njëg ci voilà léegi nag ne yokk yokk na ko dina def internet mu lu mat deux cent cinquante huit milliards maanaam ñaar ñaar ñaar téeméeri milliards ak juróom-ñett nga xamante ni di nga ko mën a jël secteur waaw waaw FMI ñoom kii euh, loolu bëggoon te Sénégal nangu na moo tax. Euh, voilà day nekk dañuy wax rek diggante élève ak maîtresse daanaka rapport yu yu baax la ñu seet maanaam léegi euh, ñu yokk carburant bi yokk énergie bi euh, ban njeexital encore lay am ci suñu koom-koom ak dundinu sénégalais yi. waaw parce que foofu bi ci def nañu effectivement que subvention bi. daanaka efficace bu baax parce que malgré que subvention nañ énergie bi à hauteur de sept cent cinquante milliards. oui ñoom milliards ak juróom fukk. dañ gis ne ñi ci ëpp ñu gën mooy les classes aisées maanaam nga xamante ci bénéficié wu que ñi nga xamante ni dañoo ñàkk alors que ñu def subvention normalement loolu mooy gën tax jëkk. voilà ah euh, léegi euh, peut-être euh, laaj bu mujj le fait que euh, ñoom euh, dañuy orienté Sénégal comme réew yu ndool yeeg ñoom seen est-ce que ci côté boobu mën nañu wax ni am nañu indépendance surtout ci côté koom-koom est-ce que Sénégal am na moom na boppam réellement. soo demee bay liggéey FMI wala Banque mondiale indépendance moom mënatoo ko am ak ñoom. ndax ki am indépendance boppam mooy ki nga xamante ne bi soxla bi soxla banque mondiale mën a boppam mais comme demeewul noonu soxla nga ñu dimbali la ci si ay projet soxla nga dimbalal ci yeneen financement soxla nga dimbalal donc dans ce cas mun na wax indépendance indépendance moom foofu mun ko nekk mhm. voilà ba tax na ne comme niñu ceefal di waxee rek kii koy commande maanaam ne ko olof jaay di waxee euh, ku la neex ngay xool mhm. waaw te ñoom noonu la ñu te seen seen d' accord docteur Mor Gassama maa ngi lay jaajëfal. waaw ah, jërëjëf fàttali économiste nga sa xam-xam màcc ci wàllum koom-koom enseignant chercheur consultant sur les questions de développement.